leen nuyuwaat bu baax mbokk yi euh, di leen jaajëfal bu baax a baax seen ànd ak euh, seen télévision Futurs Médias Euh, tey nag euh, ñu ñëw ci beneen émission bu ñu jagleel coopérative d'habitat bi euh, parce que waxoon naa leen ko tey jii nag suite lee doon ñu waxtaanee ba léegi coopérative d'habitat yi nga xamante ni dañoo am solo loolu di liggéeyal askan wi di liggéeyal tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen rek daal di dénk ay liggéey rawatina nag ci tabax mi ak ci wutum terrain bi tey jii nag ci ndorteel gi dañoo tànn dalal ki nga xamante ni moom mooy madame Bakhoum madame Bakhoum maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ba tey moom li euh, euh. ñuy wax euh, weer bi ak bi passé ak weer bi law la cat mhm. ndaxte ay homme de tenue ak ay femme de tenue donc la sikkal kon seen émission sama kër mhm. loolu rek di wane rigueur bi mhm. ñu bàyyi la nga nuyoo merci Dieynaba maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur sa sant fay nañ la tey nag yéen a ngi fi coopérative administration pénitentiaire tey ñu ngi fii Kër Massar Euh, particulièrement le site euh, bi nga xamante ne ñu ngi ko tabaxoon en 2010. Mhm. délivré ko en 2012. d'ailleurs madame Aminata Touré ministre de la justice moom moo ko inauguré woon. Mhm. donc euh, ñu ngi leen di dalal jàmm du nuyu ñëpp. merci jërëjëf. Uh-huh. kon madame Bakhoum euh, euh, fi ñu ne nii. Uh-huh. bii mooy seen ñaata ñaata projet euh, si bi ngeen bi ngeen defar. fi ñu nekk nii yéen a ngi uh-huh. suñu cinquième programme. ok mooy cinquième programme. parce que mus nañu def suñu première cité mu ngi nekkoon Ziguinchor. pour vingt neuf logements. ah waaw dañuy décentraliser décentraliser projet yi. donc deuxième cité bi mu ngi nekk Liberté 6. pour deux deux cent quarante deux logements. oui troisième cité bi. mu ngi nekk suñu suñu ginnaaw fii yëpp pénitence la pour 165 logements également donc 31 parcelles yu ñu joxoon suñuy membres yi nga xamante ne amatuñu woon capacité pour am crédit donc dañuy def des foo ay mesures sociales ñooñu parcelles lañ leen joxoon. d'accord ñooñu ay parcelles lañu am mm-hmm. programme bi mu ngi nekkoon fee Zac Mbao pour 42 logements euh, cinquième programme bi foofu la ñu nekk nii. Euh, ñu ngi fi tabax euh, cent soixante logements. fii nii waaw donc. donc vingt cinq parcelle yoo xam ne dañ ko joxoon ñi nga xamante ne mënatuñu woon am logement mais boo xoolee mooy fi ñu taxawoon fi ñu déparé bu fii mhm. donc euh, fii yëpp ay logement la gis nga sax membre yi déjà commencé nañ transformer seen logement waaw ñu ngi euh, transformer macha allah bakkane na waaw fii mooy cinquième programme bi mhm. donc euh, fi ñu jóge léegi mooy ñàkku rab moom mhm. mooy programme bi ñu nekk di monter waaw ñàkku rab waaw ñàkku rab mooy li ñi nga xam ne moom la ñuy gis ci image yi waaw euh, ñàkku rab moom naka la nar a demee foofu ñàkku rab ñu ngi fa monter benn programme immobilier wu 122 logements sit bi mu ngi nekkoon 3 hectares ñoo ngi ko jëndoon en 2013 Euh, morcelé nañ ko viabiliser nañ ko euh, ba fi mu toll nii joxe nañ ordre de service yi pour entreprise yi démarrer gis ngeen sax ne d'ailleurs yaa am poste waaw waaw gis nga waaw poste courant am na benn entreprise bu commencé defar foofu baraque de chantier mhm. foofu dinañ fa amee 73 f trois sos euh, dinañ fa am 32 31 autant pour moi 31 F2 et 18 F1 mhm. donc moom moo nar constituer 122 logements yi ñu nar a tabax ñàkku rab mm-hmm. BHS moom moo ñu financé mm-hmm. donc mais membres yi am nañ ci benn quote part boo xamante ne ñoom ñoo ko cotisé boo xoolee terrain bi ak li ñu viabilisé mu ngi toll ci 349 millions mm-hmm. yoo xam ne membres yi ñoo ko cotisé BHS moom moo ñu nar a financé construction bi commencé na d'ailleurs mettre en place les crédits donc euh, à hauteur de 964 millions et quelques. donc bu ñu bu ñu xaymawee projet bi en quelque sorte dina toll si 1 milliard 306 millions et et quelques. donc seen projet yéen waa CONACHEL. Euh, projet ñàkk rab bi ñàkk rab bi waaw. d'accord boo boo programme bi. de l'acquisition mhm. à la un milliard cent six millions et mhm. euh, moom de façon li muy def moom loolu ndorteel ndaxte banque la buy dimbali bu baax askan wi rawatina coopérative d'habitat yi mhm. danañ si ñëwaat sax ak ñoom pour ñu wax ñu nan la ñuy jàppalee euh, coopérative d'habitat yi. Mhm. léegi nag euh, madame Bakhoum li ma bëgg ñu waxtaan mooy par rapport un peu ak ak seen coopérative na ngeen ko tëralee. parce que coopérative bi ci atum 1989. lañ ko 87 ko lañ ko lañ ko créé ban année la commencé ay. la yor agrément euh, mu ngi yor agrément 1989. d' accord 89 pratiquement le 4 janvier 1989 la yor agrément mhm. mu ngi commencé mettre en service un programme en 1991. à mhm. Ziguinchor. Mhm. foofu la ñu commencé tabax. d' accord Ziguinchor ngeen tàmbalee. Euh, waaw ñëw Liberté 6 ñëw Liberté 6. ñëw Kër Massar 1 mooy fii suñu ginnaaw. pour 165. waaw dem Zac Mbao pour 42. ñëwaat fii pour cent soixante. waaw dem Niakourab pour cent vingt deux. d' accord uh-huh. euh, léegi yéen seen coopérative d' habitat bi xam nga mm. dañ naan coopérative yi am na yoo xamante ne dañuy juddu rek. Mm-hmm. daanaka euh, dëddu àdduna comme ni ñu koy waxee. naka mm-hmm. ngeen def ba seen coopérative mën a dëgër. ñun nag euh, Dieynaba on mhm. touche du bois. <laughs> Mhm. macha allah ñu laal bant ñun ñëpp. waaw ñun nag euh, dañ fi bàyyi loo xamante ne dañ ko war a sàmm te ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kattan. Mhm. parce que suñuy anciens ñoo ko fi bàyyi. donc euh, coopérative bi ni mu juddoo mooy dañu créer benn assemblée générale région bu nekk délégué ay membres am ñu wax ne dañu bëgg a constituer. assemblée générale moom mooy première assemblée constitutive bi. ñu former un bureau bureau bi moom mooy conseil d' administration composé de neuf membres neuf membres yooyu dañuy élire à leur sein euh, un bureau exécutif que nous sommes aujourd'hui pour six membres day am président am vice-président secrétaire général secrétaire général adjoint trésorier général et trésorier général adjoint parmi les neuf membres day des yeneen trois yoo xamante ne ñoom dañuy ñëw di ñu assister en cas de réunion organigramme daal bu bu bu strict daal la war am coopérative d'habitat coopérative bi d'habitat mhm. donc day fonctionner day fonctionner am nañu tamit ñetti commissaire au compte yoo xamante ne. ñoom ñoo yor xaalis bi waaw non non trésorière moo yor xaalis bi. mais mais ñoom ñoo ñëw di contrôler yër yër mooy xool. voilà ñoom ñooy ñëw di contrôler uh-huh. ndax trésorière bi lekk na xaalis bi uh-huh. wala bureau bi nekk en place lekk nañ xaalis bi uh-huh. mais macha allah mm-hmm. amaguñu problème daal d'accord te ñu ngi ñaan yàlla vraiment li liñ fi fekk ñu gën koo yóbbu kanam bañ ko delloo ginnaaw seen coopérative bi ñan nag ñan ñoo ci nekk euh, coopérative bi mm-hmm. euh, tous les membres de l'administration pénitentiaire la regroupé tous les grades confondus et également les employés qui sont détachés au niveau de l'administration pénitentiaire maanaam sociologue yeeg. sociologue yeeg. assistante sociale yi. gendarme yi ñu fiy détaché. Mhm. képp ku nekk employé boo xamante ne dañ la détaché administration pénitentiaire am nga droit ñëw adhéré ci coopérative bi. Mhm. léegi pare ngeen euh, seen euh, seen phase seen seen liggéey am na yoo xamante ne pare pare na yéen a ngi euh, tàmbali ñàkku rab. Ah, te du foofu ngeen nar a ngeen nar a taxaw bu soobee borom bi. non non naruñu yem foofu. Mhm. raison pour la laquelle ñu ngi continuer di sillonner parage Rufisque yëpp. di wut ay terrain semaine passée pas plus que la semaine passée dem nañu. Thiès parce que ñu ngi compter toujours décentraliser programme yi. ok donc ñu ngi wër fii yëpp di kii parce que membre yi demande bi dafa fort. ñu ngi ñu bu ñu tabaxee ñapp rab bi ba léegi dañuy dese ay deux cent quarante sept membres yoo xam ne amaguñu mais ñu ngi cotiser. Mhm. donc am na promotion bu nekk école également ñu ngi waaj a génn dañuy ñëw adhérer. Mhm. on continuer en tout cas di def suñuy prospection. bu fu ñu amee terrain. pour ñu mën a satisfaire demande bi nga xamante ne c'est très forte. bu mhm. nekk sur la euh, table mais justement cotisation yi naka lay mhm. demee est-ce que euh, yéen coopérative bi parce que gis naa ne oto bële si ginnaaw oto bi ngeen di seen nii si ginnaaw. Mhm. Euh, coopérative bi moom moo ko jënd. parce que gis naa ñu taf ci seen logo def si gis naa si Konachap. maintenant naka ngeen di def ba mun a am ay amaat yeneen fonds yoo xamante ni coopérative d'habitat bi moom moo koy kii parce que aussi c'est important. de le relever que ne être que ne que mën am yeneen fonds. les extérieurs yu leen di jàppale. bon fonds yi moom yu ndaw la parce que membres yi d'habitude euh, li nga xamante ne lañ leen di couper assemblée générale moom moo ko fixé ñu ngi leen di couper cinq cent par par euh, membre par mois donc ñun bu ñu adhéré rek dañ leen di jox délégation de solde bu ñuy permettre bu ñu ko dugalee cinq pétavin pour ñu couper leen à la source donc dañuy cotiser vingt cinq cent par mois mais am nañ possibilité ku am sa somme additionnelle nga ñëw def versement maanaam boo dencee tuuti ñëw sotti waaw ñëw versé wala nga dem banque ñu jox la numéro compte bi nga versé indi ñu reçu de versement mhm. mais tamit euh, vingt mille cinq cent boobu vingt mille bi moom mooy épargne logement membre bi 500 francs bi moom mooy fonds de roulement coopérative bi. d'accord parce que il faut ngeen rouler boobu la ñuy dajale moom moo ñuy permettre ñuy fay suñuy gardien di fay suñu ndox di fay courant euh, di jënd suñu matériel de bureau. ainsi de suite xaalisu CONACHAP bi aussi dañ ko loger BHS ci ñaari compte compte courant buy buy génne di dugal. ak compte épargne boo xam ne presque euh, totalité xaalis bu bëri foofu lañ koy bàyyi. compte boobu des fois day générer intéret d'ailleurs intéret yooyu sax moom moo jënd oto bii ngay wax ni ci intérêt yooyu la ñuy jënd mhm. mais bu ñu demee assemblée aussi ñoom dañuy voter budget boo xamante ne mhm. dañuy wax ne euh, intérêt yi mhm. ak euh, fonds de roulement membre bi pan la par par mois mais waruñu ci dépasser x francs boo xam ne moom la ñu war a dépenser na leer daal lépp noonu la ñuy rouler di fonctionner chaque trois mois aussi conseil d'administration neuf membres la dañ leen di woo recevoir leen defal leen situation financière rendre leen compte activités yi ñu def yëpp en grosso modo. Mhm. terrain bi daal amul prix. sauf que il faut que ñu jënd terrain ba xam li ñuy revenir eh, ci lañ koy diviser par le nombre de parcelles ci la ñuy mën a définir apportu membre bi. waaw mhm. BHS nag la mu ñëw ci ci waxtaan ne bari na. Mhm. moo tax nag euh, euh, ma dem Bakhoum. Mhm. Euh, danga may may ma dem banque de l'habitat du Sénégal. ñu ñëw waxtaan ak ñoom ci ñoom naka la ñuy rek dimbalee askan wi ngir ñu mën a monte na mu waree. seen coopérative d'habitat ñu dem seetaan élément banque de l'habitat du Sénégal. waxaale na ba ñu ngi lay remercier d'abord di remercier groupe Futurs Médias ci occasion bi ñu may pour ñu expliquer lan mooy rôle pôle assistance au coopératives donc comme son nom l'indique pôle assistance aux coopératives njariñam mooy ne dañuy assister les sénégalais yi nga xam ne dañu bëgg a taxawal coopérative d'habitat bu ñu ñëwee seet si ñu dinañ leen orienter vers le bureau de suivi des organisations d'autopromotion bu ñu fa demee dinañ leen jël en charge fixer leen un rendez-vous pour que mu ñu mën leen délivrer PV bi nga xam ne ñun moom lañ leen di laaj ak dossier bi bu ñu amee dossier bi ba pare dañuy ñëwaat ci ñun seet si ñu bu ñu ñëwee seet si ñu léegi ñun dinañu discuter ak ñoom ci seen ay projet xool naka la leen banque bi du gunge pour que ñu jënd ay terrain ak ñu tabax ay kër ci njëg bu gën a yomb avantage yi coopérative d'habitat boo ko déggee d'abord c'est la solidarité mooy ne membre dañuy jàppalante avantage bi aussi mooy ne coopérative bi amul pour di def bénéfice ci kaw ay membres am bu ñu ñëwee seet si ñu banque bi su leen defalee financement njëg bi ñu koy joxe seen membres yi maanaam soit mu nekk terrain wala mu nekk ay kër ak ay taux yu gën a yomb bien bien évidemment ci leple bi parce que comme ni nga ko xamee banque de l'habitat actuellement mooy proposer les meilleurs taux sur la place publique. compte coopératif d'habitat bu ñu ñëwee ñaar lañ ciy ubbi dinañ leen ubbil lu ñuy wax le compte courant bi nga xam ne ci la membre yi di seen épargne deuxième compte bi mooy le compte de constitution de capital. ci compte de constitution de capital boobu part sociale yi nga xam ne ñu ngi ko fixé ca ba ñuy mettre sur pied coopérative bi ci lañuy ñuy verser les parts sociales donc lañ fay verser mooy part sociale bi fois le nombre d' adhérents. ba ñu ngi profité ci émission bi pour lancer un appel au Sénégalais ñi nekk Dakar ak ñi de la diaspora parce que fu nekk la ñuy solliciter sax d' pour créer des coopératives d' habitat. ñu ngi leen di ñax ci ñu ñëw seet si ñu au niveau de la BHS pour que ñu jàppale leen ñu mettre sur une coopérative d'habitat ak banque bi gunge leen ba ñu am ay terrain ak ay kër ci anam bu gën a oyof. secret bi maanaam mooy mën nañu wax ne mooy expertise bi parce que banque de l'habitat ci wàllu financement de l'immobilier financement mbirum terrain ak kër daanaka mën naa wax ne benn banque mënu ko ci. donc y a l'expertise qui est là les coopératives d'habitat ku ci am projet da ngay ñëw nga seet si banque bi soo ñëwee nga seet si banque bi nga wax ñu lan mooy sa projet su ko defee banque bi gunge la ci projet bi nag mën na nekk njëndum terrain ak viabilisation c'est-à-dire indi ndox mi courant bi ak defar tali yi loolu banque bi dina ko financer coopérative bi bu bëggee dem tamit ba construction maanaam tabax kër yi aussi banque bi daf ko ciy gunge donc am na ay exemples yu bëri yoo xam ne mën nañ leen ko citel ay coopératives yoo xam ne du début à la fin banque de l'habitat moom moo leen gunge ba ñu tabax ay cité gannaaw page euh, publicitaire bi mbokk yi ba léegi yéen seen émission sama kër dem nañu nag euh, ca banque de l'habitat du Sénégal léegi nag dañuy dem xooli suñu beneen partenaire di Sococim Industrie euh, tey jii nag dañuy bàyyi xel bu baax a baax li ñuy liggéey ci wàllum social rawatina nag fondation Sococim mi yëngu ci ay xeetu baax baax yu doy waar. salaamaaleykum Euh, ñu ngi leen di dalal fii ci centre culturel euh, Maurice Guèye bi nekk Tëngéej euh, centre bi nga xam ne Sococim Industrie ko moom bugg a waxtaan ak yéen ci fondation Sococim Industrie fondation Sococim Industrie ñu ngi ko créer en 2010 dañ ko reconnaître comme fondation d'utilité publique ndax état bi dafa gis li Sococim di def ci mbirum responsabilité sociétale de l'entreprise moo tax ñu jox ko étiquette boobu reconnaître ko d'utilité publique fondation bi dafa am conseil d'administration boo xam ne juróom benni membre la juróom ya fondateur yi mooy muy sim Industrie moo leen fal benn ba état bi la état du Sénégal et ministère de la famille moo ko rëpp moo moo moo fa teew fondation bi euh, la ko tax a jóg mooy euh, jàppale euh, ñi dëkk ci gox bi ak ñi dëkk ci Sénégal yëpp parce que fondation bi dafa am euh, nu mu tuddati ubbite ci Sénégal yëpp dafa bëgg jàppale ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci mbirum koom-koom développement économique maanaam jàppale leen entrepreneur parce que umpalewu leen ne ñi bëgg a liggéey bëri na waaye xëy na moyens yi ñoo demewul noonu ba tax na ñun dañ leen di jàppale en termes de moyens accompagner leen pour que ñu mën a taxawal ay micro entreprise loolu mooy euh, mbébétu fondation bi euh, ba tax na euh, ñun yemalewuñu domaines yi ñuy intervenir ci fànn yëpp la ñuy intervenir dinañ intervenir ci santé dinañ intervenir ci agriculture dinañ intervenir agro agroéconomie dinañ intervenir teinture jigéen ñi danañ leen jàppale commerce euh, lu nekk fànn boo jël rek euh, ci li nit ñi di yëngu ci gox bi ñu ngi leen ci jàppale particularité bi nag mooy dañ leen di tegal ay financement financement yooyu euh, am na ci lu lu lu lu lu lu kii lu xaw yéeme loo xam ne doo ko gis ci yeneen gox yi ci yeneen organisme yi muy financement à taux zéro la maanaam amul taux d'intérêt da ngay ñëw indi sa projet ñu saytu ko bu projet bi baaxee buñ ko xoolee ñun saytu ko euh, fondation bi xool ne baax na ñu accompagner la euh, encadrer la la nga mun a développer sa sa sa sa projet looloo tax euh, ñu taxawal fondation bi 2010 ñu démarré activités yi réellement en 2012 boobu ba néega nii jot nañ fi développer lu mat fukk ak ñaari projet créé nañ fii à peu près cent soixante quinze emplois booba léegi ni te projet yi ñu taxawal yëpp a ngi dox waaw kooku nag ñu ci sant yàlla euh, ma ciy sant aussi samay collaborateurs yi nag ci fondation bi particulièrement madame Diagne mi nga xam ne moo koy diriger au jour le jour. man maa ngi tudd Amady Baro Diouf man maay responsable sant culturel bu fondation Sococim sant culturel bi su ko Sococim daf ko def jagleel ko askan bi pour jàppale leen si mbirum culture mbirum jàng éducation mbirum sport. Euh, centre bi nag bëri na ay espace yoo xam ne que lépp population yi ñoo ko moom suñ fi ñëw du fay dara am na nañu fi benn espace boo xam ne que pour affaire lu volet la am nañu fi espace boo xam ni que dañ si def en même temps ay concert ay concert mu def ay concert ay projection de film ay mbirum théâtre centre bi tamit am na benn bibliothèque boo xam ni que am nañu dix mille ouvrages am na ñu tamit euh, mille six cent nit yu fi ñëw di abonné di ab livre wala dem si biir euh, cyber pour def ay recherche informatique am ñu tamit benn salle boo xam ne que dañu def ay exposition ay atelier ay conférence ay projection de film lépp askan bi moo ko moom ñu fi ñëwee ñu fay dara dañuy jàppale tamit euh, artistes yi suñu soxlaa def benn euh, manifestation fii dañ leen di jàppale si chaise si sono si organisation bi des fois sax jagle leen tuuti xaalis ndax organisation bi ñu ko dafa xaw a cher centre bi tamit boo xam ne que fondation Soukoussib moo ko moom dina tamit jox ay bourse ay élèves depuis deux 2008 ba léegi ñu ngi joxe ay bourses am ñu fukk at ñett yoo xam ne ki chaque année dañ leen di jàppale seen ay euh, jàng 75000 francs pendant 9 mois ñoo xam ne ñu leen di suivre am na koo xam ne sax actuellement mi ngi def doctorat médecine loolu yëpp su ko sim moo koy jàppale askan wi. am na tamit euh, benn projet bu ñuy woowee projet de sensibilisation à l'environnement boo xam ne que dañu ko jagleel ndaw yi di leen ñaax ci mbirum euh, importance environnement mbirum reboisement mbirum set ak setle ngir nga gën jàpp sa environnement ndax dafa nekk lu am solo chaque année i tamit fondation Sococim dina fi organiser lu ñu waxee fête de l'excellence boo xam ne que dañuy jël primer les meilleurs élèves euh, si biir waaw si biir fête boobu itamit si la fondation bi di joxe ay bourses chaque année dañuy jël ñetti xale lii lycée moderne lycée Bargny lycée Abdoulaye Sadji yoo xam ne que mën nañu jàng xarañ nañu wante seen waajur seen loxo jotul seen ginnaaw ñu jàppale leen. kon nag mbokk yi euh, mu nekkoon seen émission sama kër gis ngeen nag euh, reportage yu am solo ak waxtaan yu am solo yu ñu daal di am ak euh, ñi ŋànk ay coopérative d'habitat yu ci mel ni Comico ak waa Konachap liggéey nag bu am solo def nañ ko mooy ay coopérative d'habitat yi nga xamante ni ñu dëgër la amuñu caaxante yàlla bu ñu daanu te du ñu daanu bu sobee borom bi banque de l'habitat du Sénégal liggéey bu am solo bi ñu ci def rawatina dimbali coopérative d'habitat yi gis ngeen ko ci waxtaan ñu sekk ak ñoom dañuy gërëm nag bu baax a baax suñu yeneen partenaire waa Sokosim Industrie Eh, ci jàppale bi ñuy jàppale rawatina nag social bi ñuy yëngu gërëm bu baax itamit équipe bi ma àndaloon di leen jox dig daje incha allah eh, weer yi ñu dëgmal ci seen yeneen émission sama kër